asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar te di leen ndokkale ci bis màgg bi nga xam ne moom la ñu dëgmal muy bisub Serigne Touba nga xam ni mooy bis bi moomal boppam njëkk kaa dundal boppam it dundalal ko boppam ba noppi digg la ñu dundal ko te wax ni ñu koy dundalee muy bis bu làmboo cant gum jagleel suñu borom subhaanahu wa taala ci ay may yu rëy yoo xam ni ci bis bi la ko maye woon ñu ngi jiital nag ci nuyoo beeg siyaar bi saaxibil fadil Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xam ne mooy fa toog ab jotaayam di ñaan suñu borom gën kaa kàttanal ah, gën kaa gën kaa dooleel ba mboolem naal yi nga xamee ni moom la am yéene liggéeyal ko sëriñ bi lépp mu yeggale ko te ànd ak mboolem mbokki sëriñ bépp ak taalibe yi waaye di nuyu bu baax ak siyaar bu baax. jéeruñu jëmb ji nga xam ne moom lañu bëgg waxtaan muy Cheikh Ibrahim mi fi toog jataayub Cheikh Amadou Ndoumbé moom it di ko ñaanal suñu borom gën kaa dëgëral gën kaa kàttanal ba mu yeggalam mboolem naal yi mu am yéene liggéeyal sëriñ bu Ndoumbé ak suñu Tuubaa ak mboolem njabootu sëriñ bu Ndoumbé gépp di njabootu Cheikh Ibrahim mi nga xam ne mooy ab taawam te sëriñ Daam nekk fi waaye di njabootu sëriñ Abdourahmane te sëriñ Saalihu nekk fi waaye di njabootu sëriñ Abdul Xaadir te sëriñ Modou Xabaan mi ko fi nekkal teew ne ci suñu kanam waaye di njabootu sëriñ Xabibu Euh, sëriñ Ibrahim nekk fi ak soxna Faati mi nga xam ne ni mooy seenub jigéen sëriñ Abdou Xafoor nekkal ko fi ñu ñëw nag ci laaj bi kan mooy Cheikh Ahmadou Ndoumbé xamle ko yomb na jafe na euh, yomb na mooy day mel ni ñu xamle ko ci anam wi gën a gàtt te yaakaar naa it bu nga ko ceree xam xamle mooy bi ki ci gënal mooy day na sëkk ñu wax ne taalibeeb sëriñ bi la ànd ak moom ci liggéey bépp it fu sëriñ bi mos a gëstu rek gis na ko ci ginaawam muy koo xam ne it mbokkum sëriñ bi la ci wàllu gu mën di doon te loolu bu ñu duggee ba ci biir waxtaan yi euh, dina gën a leer sëñ mbindum mi nag bu ñu ko bëggee xamle faaw ñu xamle ñan ñooy ay way juróom ndax nit ku ne bu dee feeñ day feeñ ci ay way kon mu ni su kaa xamle lu dul ni faaw ñu xamle ñan ñooy ay way juróom ci biir tomb boobeer ci lañuy leeral mbokk gi dox diggam ak sëriñ bi bu ñu ci jeexalee xamle am njàngam mi njàngum alxuraan ak njàngum xam-xam mi nga xam ne ni askan wi mu bokk ku ci bokk boo feeñee jamono li nga jëkk a def mooy ñaar yooyu bu ñu ci pare it xamle ab liggéeyam mooy bi mu ànd ak sëriñ bi kañ la ak fu mu ànd ak moom ak nu mu ànd ak moom loolu lépp nag dina feeñ ci biir waxtaan wi. Cheikh Ahmadou Ndoumbé ni ñu ko xamee sëriñ bu Ndoumbé mooy tur wi nga xamee ne moom la siiwee sëriñ la ñuy jël yokk ci beneen baat mi mi Ndoumbé Ndoumbé ñun ñëpp xam nañ jigéen la. waaye loolu bu ñu ko waxee li ñu ci jublu rek mooy dañuy tudd nit ba noppi di ka askanel ci turu waajur mu jigéen waaye turam dëgg mooy Ahmadou Mbacke di doomi ku ñuy wax Serigne Seydou Mbacke Seydou mii juróom nag ku ñuy wax Saxit Soxna bu Bousso muy juróom Saxit Soxna bu Bousso nag maam Maharam mooy mooy juróom loolu mooy askanam ci wàllu waajuramu góor bu fekkente ne ci wàllu waajuru jigéen yëpp ni ñu ko waxee rek Serigne Manoumbe jigéen bu ñuy wax Manoumbe ñang moo ko jur. ndumbe ñangeen ku ñuy wax Baara Anta Ñang moo ko jur Baara Anta Ñang ku ñuy wax Ousmane Ñang mi ñëpp gën a xam ci daanu Ñang muy way juróom kon ci diggante mbakke ak ñangeen ak Mbusoobe ak Kokki ñeent askan yi ñoom ñoo ko séq te loolu mooy ñeent askan yi séq sëriñ bi ndax ñun ñëpp xam na ne maam Maharam mooy maam yi sëriñ bi ndax moo jur maam Balla Aysa mi jur maam Mor Anta Sali mii way juru sëriñ bi waaye ba tey maam maharam moo jur ahmadu soxna buso mi jur soxna assuwaalo mi jur soxna jaar mii way juru bi maam maharam moom nag moo jur sanxiir soxna buso mi nga xam ne moo ahmadu soxna buso mii way mii maam yi soxna jaar ñoo bokk ndey ak baay di maam jur sëriñ waaye maam maharam ba tey moo juraat ahmadu soxna buso mi jur saydu mati euh, euh, sanxiir soxna buso mi jur saydu mati euh, mi jur sëriñ bi nga xam ni ñooñu ci wàllu askan ay doom baay lan bu ñu xoolee ca wàllu seen waajuru góor waaye bu ñu xoolee ci wàllug seen waajuru jigéen it sëñ mënu meeg soxna jaara ay doomi ndijaay ak doomi bàjjan lañu muy ndijaay ci sëriñ bi loolu mooy ci wàllug seen waajuru jigéen ci Mbàkke ak Mbusoobe wala ci wàllug seen waajuru jigéen ci diggante askanu ñangeen ndax nummee ñang mi nga xamee ne moo jur sëñ mënu be baara anta ñang jur ko ku ñuy wax daanu ñang jur ko daanu ñang moom moo jur ku ñuy wax nummee ñang ba tey mu jur soxna aswaalo mi waajuru soxna jaara ba tey it ñu bokkaat seenu bokk ci kokki ndax sàmb ay jóob mi nga xame ne mooy bàyyi maxtaar ndumbe nga xam ne boo doon wër ñu bëree bëri ay sëtam la ñu doon moo taawloo jigéen ju ñuy wax Mariama Jóob Mariama Jóob moom mee nag bi mu demee kër ku ñuy wax Anta Sall la am Anta Sall dem kër am ku ñuy wax Fatimata Saw Fatimata Saw moomu am ku ñuy wax Awa Dikk Kamara Awa Dikk Kamara jur ko ñuy wax Mati Sànq Mati Sànq jur ko ñuy wax Anta dikk anta dikkee jur baara anta mi jur ndumbe ñang mi jur suñu waaye ba tey Mariama Jóob moom nga xam ne moom laa waxoon léegi moo juraat anta sàll Fatimata Saw awa dikki Kamara daaru sànq ndumbe ñang aswalu maam jaara cheikhul xadim kon ñoom ñaar ñoo bokk ci wàllug waajuru góor wàllug waajuru jigéen ci wàllu ñangeen ak mbàkke ak ci wàllu kokki noonu la ñu bokkaate ci wàllu mbuso bi xamaat soxna buso mi jur moo tabar buso moo buso awa mbaay soxna jaara xamaan moom ba tey moo jur soxna Busa mi jur Saxiid mi jur Seydou mi jur Sëñ Mandumbe loolu nag tënk la boo xam ne Sëriñ mu Ka tënk na ko ñoo bokk ndey te bokki baay ci wàllu maam ak wàllu baay mu dellu fa mbokk gëjaa jëndee ngërëm la wàcc la maam astuwaay looy ndey maam jaara toñoo di bokki maam ndumbe mu jur ahmadu daam mbàkki mu soobee yàgg na yàgg na moom nag mi feeñ jamono ci atum 19 euh, saxbaan 1275 maanaam fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru saxbaan ci weeru olof dëppook atu junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci gàddaay gi loolu it mi ngi dëppook 24 mars 1859 ñaar fukki fan ñeent ci weeru mars dëppook bis bu alxamis ci 1859 ci atum juddu Seydina Isa mu feeñee jamono ci dëkk bu ñuy wax njax njax euh, euh, fi mu ne nii xuru mbàkk lañu gën a xam te fekk nja mooy dëkk bi nga xam ne moo ëmb xuru Mbàkke ndax Mamadou Anta bi nga xamee ne bàyyeekoo na Mbàkke Bawal dafa demoon ci dëkk bu ñuy wax njakkan fekk ay ndijaayam Mamadou Anta Sali ak Seydou Mati mi jur suñu mbir mi mosuñoo teqalu ko ci wàllu gu mën doon bi muy dem njakkan nag fekk ay ndijaayam bi mu demee ñoom ñoo ko dalal dogal ko suuf mu dëkk fe ci aw xuru xur woowee la ñu tuddee xuru Mbàkke mooy xuru wi nga xamee ne ña sant Mbàkke ñoo fa dëkk foofu nag ñu bëree ci njabootuk Euh, euh, euh, soxna jaar a fa la ñu feeñee foofu nag fa la suñu mën a feeñee ci at mi mu wax léegi muy 1859 24 mars 1859 ba mu feeñee it foofu la nekk ba ci 60 61 diggante 61 jàpp 62 ci la woote bu siiw boobee amoon Maba Juxu ci la woowoon sëriñ sépp dajal leen Saalum ngir rawal leen te it boobu amul kenn ku mu bàyyi woon ñoom ñëpp dañuy dem. benn nga dem ci sa coobare bopp bopp baa ñu force lu yóbbu la wala boog nga doon ko màgget koo xam ne xëy nañu dox ba àgg Saalum mën na jur jafe-jafe ñu bàyyi la fa nga nekk waaye bu dul ñëpp dañu dem te ñëpp demoon foofu nag bi Mamour Anta Sali di dem ci la waajuru suñ mënu mi demaale Saalum waaye ci la soxna jaara demaale suñ mënu mi di tut tànk toll ci ñaari at jàppu ñaat at demaale waaye ña fa nekkoon ci njabootu soxna jaar yi ñoom ñëpp demaale foofee ca Saalum ca Poroxaan fa la nekk nag ba sëñ Mandumbe toll ci war a tàmbalam jàng nag tàmbalee jàng alxuraan ci waajuram wu góor moo ko dalal jàngal ko ba mu mokkal ba bindi kaamil mu tàmbalee ko mu tàmbaleel ko jàngum xam-xamam foofee ci moom it la jàngee xam-xam ba jàngalu xaw a takku waajuram wu góor dog di wàcc ab liggéey di wàcc ab liggéey nag ci la yeggalee ci am njàngam ci Mamour Anta Sali ak Serigne Touba ndax ci la waajuram wu góor wàccee ab liggéey euh, fekk boobu lu jiitu loolu Maba Jaxu mi nga xamee ne moo leen woon faatu woon na ci guerre boo xam ne moom la attaqué woon waa Chine di dëkk bu tuutee tuutu mu xeeb leen xeeb seen doole jug jekk-jekk attaqué leen te waajut ñooñu tegal ko ay pexe ba mu faatu. fekk lu jiitu loolee raj Lajjoor Lajjoor mi nekkoon buurub Kajoor ci 1861 jàpp 62 ba 63 ñàkkoon na nguur gi. ban la doon kaa rey mu daw ñëw saalum làq si ci màmba màbba jox bi mu ñëwee màbba jox dana ko boo bëggee làq si ci màmba fat la faaw nga tuub ànd ak man mu nangoo ànd ak màbba jox bi nga xamee nag màbba jox faatu na waa Kajoor woowaat la joor ne ko ñëwal ñu delloo la sa nguur bi muy dellu nag ci la wax ni Mamoor Anta Sall dama bëgg mu yóbbaal la fu mu nekk nga nekk ci wet ga lu may nekk nga nga jàppale ma ci wàllu diine fekk boobu bi sëriñ si rajo Saalum Euh, bi ñu nottee sa xam-xam gis nañ Mamour Anta Sali ni ko yàlla mayee xam-xam ci seen biir mais xam-xam bu sell boo xam ne heure bu musaana tontu ci xew-xew rek dañuy xam ne lam tontu dëppoon ak diine tey dëppoon ak xel mu rafet moo tax foofu la ko euh, Lat Joor jaxasoog moom foofu it la tànnee bëgg fépp fu mu nekk rek mu nekk ci wet gi noonu nag bi Lat Joor ji dellu Kajoor ci la yóbbaale Mamour Anta Sali bi mu nekkee sukkeer mu sancal ko fi ñuy wax pataar foofu Mamour Anta Sali am na fa juróom benn at jàpp juróom doog dafa bàyyi ko di sañ ci Mbàkke Kajoor ci 1880 bu Moodu mi nag 1874 bi waajuram bu góor wàccee ab liggéey fa la bàyyeekoo Poroxaan ñëw Pataar àggale am njàngam ci Mamour Anta Sali ak sëriñ bi boobu université bu mag boobu ngay dégg ci Mamour Anta Sali foofu la nekkoon ñu bëree bëri ci mag ñi fa la doon jàngee fa la bu Moodu mi nekkoon sëñ Daaru Xasan Njaay sëriñ Dam Abdourahmane Lo sëriñ Ibrahima Sar Njaañ ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bokk nañ ci daara ja jàng fa la ñu nekk di jàng Mamadou Anta Sali di leen jàngal sëñ bi di jànguñu di di ñoom waaye di leen jàngal. 1880 ci la Lat Joor tuxoo dem ci Cilmaxa Mamadou Anta Sali bàyyi ko fi ñuy wax Pataar Lat Joor jox ko suufus Mbàkke Joor mu sant mu sanc ko tuddee ko Mbàkke Joor 80 81 mu wàcc ab liggéey 83 jàpp 4 sëriñ bi jot ndigal lu bees lu bàyyi ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mën ne ko rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faxat li fi nekkoon muy jàng ak jàngale lu baax la naka jekk fi nga ko fekk waaye nag du ñëpp mën a jàng du ñëpp mën a jàngale te it njariñ la dangaa doon njariñ loo xam ne ñëpp ñoo la war a jariñoo kenn kon da ca war a gis boppam kon nag dugalal yoonu tarbiya mi nga xamee ni ku mënta jàng dem tarbiya ku mën a boole ñaar yëpp boole ñaar yëpp loolu nag ci la sëriñ bi wootee woote bu rëy boobee nga xam ne li mu njëkkoon wax mooy képp koo xam ni da nga bëgg ànd ak li ñu nekk nga nekk ci bisimilah mën ngaa ànd ak ñun waaye képp koo xam ne jàng rek moo la taxoon jug bis na ko tey yeewu na la nga dellu ci say mbokk xool ñu la jàngal ni Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana di nettale ci Irwa bi mu waxee wax ji doon wax ju bees joo xam ne mosuñu kaa dégg ñu bëree bëri dañoo jaaxle ñu bëree bëri ci mboolaam yit foofu la ñu génnee mbàkk yor dem àggali seen njàng ci feneen ñu néew rek ñoo def ànd ak sëriñ bi ci li mu woote am na ci ñoo xam ne si nag dañoo euh, def li ñuy tuddee sikk sàkk ak a toog xaar ndax ñoom bi ñu ñoo Mbàkke Kajoor am na ñu jaxasoo lool ñoo xam ne ñoo taxoon ñu ñëw fi kon la ñoo jël benn décision dañuy laaj ñooñu bu buñ leen laajee li suñ bi lu ci seen xalaat bu fekkante ne ñooñu dañoo gis ñu leen toog leen ñu toog bu fekkante dañoo gis ñu war a dem ñu daal dem waaye li am solo ba am solo mooy jàmbaar ji ñu waxtaane moom ci ñi toog la bokkoon waaye ci ñi jaayanteeg sëriñ bi ci njëlbéenu yoon wi it ci la bokkoon juróom benn yi njëkk a jaayanteeg sëriñ bi muy sëriñ Adama Gueye Cheikh Ibrahima Sarr ñu jaañ sëriñ Masamba Diop Sam sëriñ Darou Xasan Ndiaye sëriñ Dame Abdourahmane Lo ak sëriñ Manumbe ñooy juróom ñi nga xamee ne jàpp juróom benn yi njëkk jaayante sëriñ bi ci màkk Kajoor ci euh, bi nga xamee ne ci la ci la ci yoon yi soso kon moom bi mu feeñee ci wayjur yi feeñee ci bërëb bi jàngee alxuraan ci wayjuram njàngum xam-xamam génnut diggante juróom ak Mamour Anta Sali ak suñ tubaa ñett ñi rek ñoo ko jàngal te bërëb yi mu jàngee xam-xam yi weesuwut Poroxaan weesuwut pataar weesuwut Mbàkke Kajoor yoon wi bi muy sosoo dakaa fekk ci biir Mbàkke Kajoor ci biir daara ji mu daal di ànd ak borom yoon yi ànd ak moom di ko liggéeyal te lu jiit loolu fekkoon nag mu ànd ak borom yoon yi ndax Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana bi muy wax ni euh, suñ mënu mem moo njëkk jox suñu Tuubaa ab junni bu dajaloo boobu ni mu bindee mooy yoon wi sosagut sosagut waaye ci ay pexeem ak yi dugg-dugg ak génn-génn lu ne mu lijjanti ko ba am junni bu dajaloo jox ko suñu Tuubaa moo njëkk a fab junniy dërëm boo legu wurus wu ñu naan ngalam teg ci loxal bàmba magam mosula sàkkul àdduna loolu Cheikh Mahamadou Lamine Diop Dagana bind na ko ci irwa waaye seex Moussa Ka it wax na ko ci ay bërëb bërëb yu wóotee wóote euh, mu doonoon borom xam-xam boo xam ne li koy firndeel mooy Sëriñ tubaa ay jamonoom bi nga xam ne daan na bëgg ay téere ci gànnaar bëriwaa ay yoon yoo xam ne moom la yebaloon mu dem wut téere yi te xam nga ne jamono joojee moom dem jënd téere xiwut xaalis yombut waaye téere yi jafe xaalis li xew mooy ñëw ñu jox la téere nga copier ko mooy nga liir ko bind ko delloo cosaan la borom gàddu li nga bind dem nga xool nag koo xam ne bokkoo leen langage bokkoo leen noo leen bindee bokkoo leen loxo boo mënee liir am mbindam ba mën kaa comprendre mën kaa sotti mën kaa delloo téereem indi sa téere kooku ko amul xam-xam doo ko def fii ma waxee yow nii gànnaar seenu mbind boo ko minute bu la ko joxoon fii bu suba nga koy xool doo ci xam benn xaraf ndax ni ñuy bindee ñoom ak ni ñuy bindee bokkuñu kon sëñ Mouhamadou Lamine Diaw Dagana wax na day wax ni bokk na ci li tegtal na borom xam-xam la mooy sëriñ bi daan na ko yebal gànnaar di ko wutloo ay téere te téere yooyu nekkutoon téere yu ñu jënd xaalis xaalis ndax dem génn xaalis jënd téere ñëpp mën nañ ko waaye nag ama liirub téere koppi yu ko moom kooku moom boroom xam-xam képp moo ko man kon nekkoon na géej ci xam-xam 1853 kon yoon yu taxaw na mu jaayanteeg sëriñ bi sëriñ bi ginnaaw bi yoon yu sosoo yàggaatul Mbàkke mu bàyyi ko fa daal di ñëw sañ ci Mbàkke Bawol wala boog ñëw nekk si Mbàkke Bawol xam nga Mbàkke Bawol moom dëkk la bu yàgg boo xam ne maamam ko sañcoon waaye yàggu fi rek benn at topp ñaari at dëkk bi xat lool te jafe-jafe yu bëri mu sañ ci suuf suuf Daaru Salaam Daaru yàggu fi benn at jàpp ñaari at mu waru Tuubaa ba gis ko sañcu Tuubaa mboolem ñett gox yi nga xam ne nag jaar na fi ñett bërëb yi yëpp suñ mënu mi daa bokk ci ñaa ànd ak moom moo tax sëriñ Moussa Ka di wax nii ca at ma siin de xare saam la daal di buur di daw xaraam fekk si bamb suñu maam ngir xam ni saalum yàqu na ba mu ñëwee Mbàkke Kajoor fekk na àllarba ki dibéer la ñu xewal mu daal di buur sóobu ci yoonu aljana jébbal sëriñ bi ab nosam def gumba jox ko am tumam fu mu toll sàkk yi ngërëmam laajal sëriñ daam fekke na keroog ba léegi musula taay musula yàgg fi jataay musula tekki laxasaay musula na wax ni sonn na musul a xëy dellu ginnaaw te lu nga ko sant mu ne waaw te du ko wan kanam gu ñaaw musul na wax ne jàmp na noonu la nekkee ak sëriñ bi ci Mbàkke Kajoor sëriñ bi euh, jóge Mbàkke Kajoor ñoo Mbàkke Bawol sëriñ bi wëy Mbàkke Bawol mu def murut bu koy dawal ñu du ko ree di ko sewal te naan ko dundam ko sànk na sëriñ bi wëy Daaru Salaam ngir bañ lu xeetoo ki malaam muy rooti tey dawa karam ñu naan ko barke jafe na sëriñ bi wëy Tuubaa mu wëy topp ci moom di gën a way du faare ndey du faare baay ba jiit far ba rawe na kon diggante bi sëriñ bi nekk Mbàkke Bawol ak Daaru Salaam di ñeent at yooyu ak li mu nekk Tuubaa lépp ñoo ko ànd sëriñ bi bi ñëw li mu njëkk def mooy sas ay daayira tarbiya lu toll ci ñeent daara sëriñ Ndam Abdourahmane Lo Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Massamba Diop Sam suñu Adama Gueye moom na ngeen xam ni wàccoon na ab liggéey njëkk ñu bàyyi ko Mbàkke Kajoor fa lañ ko ba mu ba léegi bi ma sasee daara ji ñoo ñu nekk fi di tërbiya daara ju ci ne ak nombre de personnes ya fa nekkoon bi ñu àggee ci 1890 euh, jàpp 91 Cheikh Mahamadou Lamine Baara feeñ jamono te mooy ki njëkk feeñee Tuubaa ci njabootu sëriñ bi ndax 1888 euh, ñetti fan yi ci mu xaram ci la Cheikh Mahamadou Moustapha feeñee woon Daaru Salaam ba tey 1888 ci weeru rajab ci guddeeg ñaar fukki ba ak juróom-ñaareel ba ci la Cheikh Mahamadou woon Daaru Salaam ñoom ñaar seen rawante weesul juróom benn weer képp yem ca waaye nag 1890 jàpp 11 fii ci Touba ki fi njëkk feeñ ci ñëbatu sëriñ mooy sëriñ mooy sëriñ Baara bi mu feeñee sëriñ bi woo ñeenti jëwriñ yooyu muy sëriñ Dame Cheikh Ibra Fall sëriñ Massamba Diop Sam Cheikh Ibra Sarr Njaañ xamal leen ni tey nag li nga doon wut si am ngeen ko muy ngërëm kenn ku ci la nag dañ lay ñaanal nga soppi liggéey bu ne dañ la ñaan la waxuñu la nga dem rek bàyyi sëriñ bi waaye da ngay soppi doxalin yow daam lu mu doon def ci def na ko ci yow ba mat sëkk li fi des nag mooy dem loolee nga dem tisaare ko def ko ci doomi ñeneen ndax ñëpp mënuñu yegg ci sëriñ bi te it sëriñ bi mënut a defar ñëpp amut jot googee day defar ñenn ñooñee defar ña ci des loolu feeñ ci ak dund mujj ku ñëw mën la demal ci bàllu fari ñeen defar naa ko mën naa defare sa dund lépp da nga weer ah tagg yonent bi juróom benn weer at mi fukki weer ñaar la jeex na leneen loo ci def leneen kon kooku ñim defaroon ñooñu ñooy defaraate bi nga xam ne nag wàcc na ñooñu kenn ku ci ne mu ñaanal la jox la ndigal nga soppi doxin sëriñ Mandumbe moo wuutu sëriñ Ndam Abdourahmane loo ci daara ja loolu 1890 jàpp 91 12 13 14 mu wàcc liggéey moom it moom it sëriñ bi ñaanal ko maanaam mu war a soppi liggéey 15 sëriñ bi dem ci géej gi jàpp 16